de défense a connu une hausse sans précédent de 250 pour cent. suñu budget défense nemmeeku nañ ci yokkute bu am solo mu toll ci 250 pour cent ci diggante 2012 ak 2023. ce qui nous a permis de renforcer considérablement les moyens opérationnels de nos forces de défense de sécurité. loolu moo ñu may ñu mën a dooleel ci wàllum jumtukaay suñu takk der yi. moo xam ci boor bu ñu mën ci yëngu. ci lu soxal effectif yi nag nemmeeku nañ ci yokkute bu toll ci 60 pour cent loolu moo ñu may ñu mën a yëngu ci biir réew mi yëpp. offrant ainsi un maillage